par parloo da koo bëgg a tas te duñu ko nangu par parloo boobu moo yóbbu ay nit keroog ma dégg leen ñuy wax naan ñun Ousmane la topp ndax joolaa lañ ma ne leen def ngeen njuumte mu rëy ndax waasoo amul place ci Sénégal loolu moo tax may digal ñooñ seen kilifa ne leen nañ leen artu it ñu bàyyi loolu ñuy wax bu ñu ko wax te bu ñu ko jëfee ndax waasoo amul place ci Sénégal sama meeting bi ñoo na lan laa leen wax du ngeen woteel nit parce que ñoo bokk ethnie du ngeen woteel nit parce que ñoo bokk tarixa wala diine du ngeen wokk nit woteel nit parce que ñoo bokk région da ngeen di woteel nit parce que gis ngeen ci moom ci xam-xam ci njub ak ci bëgg réew mi lu war a tax ngeen yaakaar ni kii dina defar réew mi ku yaakaar ni boo woteelee nit parce que yéen a bokk deret bis bu toogee indi alalu réew mi sa dëkk da ngay nax sa bopp est-ce que Abdou Diouf dafa yóbbu alalu Sénégal Louga est-ce que Abdoulaye dafa yóbbu alalu Sénégal Kébémer est-ce que dafa yóbbu woon alalu Sénégal Jiwaalo est que tey jii Macky Sall dafa yóbbu alalu Sénégal Fatick wala Matam soo seetee sax mooy zone yu gën a sonn ci Sénégal man dama ameel njukkal Casamance mais xam nga njukkal boobu mooy lan. Hmm. du na du leneen dig naa leen su ngeen ma falee su ma Sénégalais falee damay andi xaalis bi déedéet njukkal bi mooy ma fexe ba man seen doom ñuy am toujours fierté ci man jikko yu ñu def ci man ci njub ci dëggu. ci jiital intérêt général bu ñu musa dem ba am ci gàcc hypocrisie bi nga xamante ne moom la Djiby Fall nekkee le Sénégal ne le mérite pas la Sénégal na mérite pas des gens comme Djiby Fall Pape Djiby Fall hypocrite na Pape Djiby Fall dafa kii li ñu naan mythomane man commencé naa di ko jox garaatu mytho bu ma koy seetaan léegi comme Pétain xam nga Pétain est-ce xam ngeen Pétain gars yi ah mooy gars boobu di def série yi nii di wax ay lu munul nekk man pétin la may jox ko quoi man su ma koy seetaan fi mu toll nii te wallaahi dama ko wegoon léegi nag même communication nu mu ko mënee woon sax léegi communication mënatu ko xaw ma ndax yéen a ngi suivre bi muy wax dëgg temps muy toog jàkkaarloo di wax dëkk daawul sonnoo daawul sonnee nii tey ni mu sonnee tey Pape Djiby buy wax da ngay gis xanaa sax la ëpp nu muy waxee léegi xaw ma ndax yéen a ngi dégg fi ma bëgg a waxee ou pas au début Pape Djibril Fall xoola jàkkaarloo ñëpp a daan xuloo werante wax lépp moom na daan tekk mais bu jëlee su waxee ñëpp xam ne Djibi Fall wax na te day wax wax ju dal kenn xoolal du dagg kenn ci ruqam lay toog bàyyi ba parolam ñëw mu wax wax boo xamante ne du yuuxu du teg wax ji fu kawe te da wax mu dugg ci xolu nit ñi naturellement nit ñi faa ko di ko idolaate léegi Jibi Fall tey bu bëggee wax noo def Jibi Fall day sonn des fois mu ñàkk des fois kol gi wadd mu yëkkati waat di ko for parce que li muy wax amul. tey dama koy xool di ko seetaan ma ni ndeysaan il souffre pour expliquer li mu bëgg parce que li muy wax c'est pas naturel. dangay xool bi muy wax dëgg dafa daan ñëw naturellement dëgg yi même man mii tey ñëpp la doomu aadama yëpp la man mii tey gis nga ni may waxee dëgg nu muy naturel nii su ma demee ba bëggoon wax loo xam ne c'est contre moi ça sera très difficile te boo dee boo boo xamee tuuti psychologie rek nga jàng tuuti rek nit boo ko nee jàkk da xam ne kii nii tey nekkul. moo daloon Barthélemy Dias. moo jal Barthélemy moo dal Pape Diop moo dal ñëpp képp moo dal ñëpp képp koo gis mu war askan bi soo ko seetaanee muy wax rek da ngay il difficilement léegi nag. ma ñëw nag ci fond wu waxu Paa Djibril Fall Djibril Fall je pense que tu mérites yuuxoo yi la askan bi di yuuxoo léegi nag euh, euh, li tax ngay fuir ni askan bi ñoo la yuuxoo loolu bokk na ci li nga xamante ni tax na man nawatuma la parce que tey xool leen fi Pape Djibril Fall indi wax bi bu la passé ne woon na tentative de meurtre jël lépp teg ko ci ndodd Ousmane Sonko ak patriote yi Ah, nee na tentative de meurtre la mooy bële passé. jël lépp def conférence de presse ah. mensongère des propos malo malhonnêtes toog di wax ñëpp xam ne yow li ngay wax amul ndax am na ñu fa demoon ñoo xam ne bokkuñu ak soo Sonko sax parti dañoo taxaw ne vraiment li Djibi Fall mii di wax loolu amu fa. kenn dóoru ko kenn génne lu ko jaasi kenn indi lu ko problème mu taxaw ne dañ koo naroon a rey jël ko taf ko ci ndoddu ñaaw yaay muy Ousmane Sonko. il a la même chose. neewaat na encore ñi ko doon yuuxoo les partisans de Ousmane Sonko la léegi nag léegi moo tax kay da nga naan Pape Djibi il est un opposant mais il oppose kii même bu dee xas xas Macky Sall moom Ousmane Sonko lay boole xas yi mais bu dee xas Ousmane Sonko da kay xas moom kese xam nga ndax yéen a ngi dégg Djibi Fall wala yéen a ngi dégg comment il raisonne wala yéen comprendre ngeen Djibi maanaam buy xas Macky Sall ak Ousmane Sonko maanaam bu bëggee xas Ousmane Sonko. bu buggee xas Macky Sall moom Ousmane Sonko lay boole xasandoo leen boole leen xas yi mooy que waaw il s'en fiche de la Séné Sénégal ni ay nit ñu ngi dee ñuy génn di jubilé muy Macky Sall muy ki nekk ci pouvoir bi mooy kuy ut nguur mooy ki bëgg a ut nguur ñoom ñaar ñëpp ñoo yem nangam naa boole leen xas leen waaye buy attaqué Ousmane Sonko da koy beral ay attaque am kon ngeen xam ni Djibi Fall faiseur de malin la mais heureusement gënuñu male moo ñu gën a jàng nag yaa ñu gën a jàng. yaa ñu gën a xëy na yaa ñu dàq wax mais gënoo ñoo muus te doonu gën a muus ba jant bi di fay suy xas Macky Sall da koy boole Ousmane xas parce que jàpp na ni Macky Sall ak Ousmane Sonko ñoo yem dayoo ci réew mi moo lay wan kon amoo intelligence Pape Djibi boo demee ba jàpp ne Macky Sall ak Ousmane Sonko liy xew ci réew mi ñoom ñaar la kon yow respecté woo sax Macky parce que Ousmane Sonko n'est pas le chef de l'État il n'a pas il n'est pas de l'État Ousmane Sonko nekkul moom mooy chef de l'État Ousmane Sonko nekkul moom la des moom la sénégalais yi dénk seen pays intérieur nekkul sénégalais yi moom lañ dénk seen budget nekkul sénégalais yi moom lañ votel jiital ko c'est Macky Sall qui est le chef de l'État le gardien de la constitution le premier magistrat le père de la nation waa nag bu bëri réeree sax may fay jibi jibi ay nit mënuñoo dee nga bëgg nañ responsabilité Ousmane Sonko la ak Sall te Ousmane Sonko kenn dénk ko réew mi Ousmane Sonko yorul police Ousmane Sonko yorul gendarmerie Ousmane Sonko newul dem leen jëli diw far force man Ousmane ko neewul tiire leen ci kaw askan bi ku dee yaa perte te pourtant gis nga ay ñooñu Macky Sall génn ne ku dem manifestation suñ loolu rayee da ngaa perte kon ñoom waxoon nañ ñu dañ ñuy rey léegi ñu rey ñu nga ni non non ñoom ñaar ñëpp la c'est malhonnête de ta part mon frère c'est très malhonnête de ta part encore une fois Pape Djibi c'est très malhonnête de ta nga jël responsabilité bi li xew ci réew mi séddale ko cinquante cinquante soo Sonko ak ak Macky Sall c'est malhonnête parce que soo ko amul prérogative njiitu réew te nee naa la bu bëy réeree sàmm mooy fay su bëy ruuree sàmm mooy fay gars yi kuy sàmm réew mi Macky Sall mooy le président de la République Macky Sall moom mooy décision yi moom moo toog ne man may fal ministre de la justice garde des sceaux garde des sceaux moom mooy patron procureur kon balaa ñuy def dara dinañ ma laaj kon jàpp nga ni jibi est-ce que xamuloo ni kon Jibi Fall liy xew ci réew mii Macky Sall laaxu nañ ko ci xalaatam kon Macky Sall mooy responsable luy xew ci réew mi ndax bu ne woon garde des bul topp du topp garde soo bu ne woon procureur bul topp procureur du topp te moom moo it am na dossier yuy taal réew mi man maa ci teg sama conc Jibi li ma doonoon ñaan yow Jibi faal mooy nga laaj Macky Sall ndax dossier bi bokkul ci yuy taal réew mi loolu laa doon xaar ci yow Jibi nga laaj Macky Sall le président de la République ndax yow mii waxoon ni yaay am na dossier yoo xam da nga ciy teg sa conc ndax day taal réew mi ndax dossier bi loolu nga waroon laaj le président Macky Sall ndax bokk na ci wala bokk ci man loolu laa doon xaar ci yow mais Pape Djibi nee na euh, lii xew ci réew mi irresponsabilité Macky Sall la ak Ousmane Sonko ñoom bëgg nguur ut nguur ak bëgg téye ci nguur moo leen jaral ñuy rey sénégalais yi léegi Pape Djibi Fall moom jàpp na ni Macky Sall ak Ousmane Sonko ñooy rey sénégalais yi te Macky Sall li la président de xam nga ne loolu ku jàng sax waru ko toog di ko wax parce que xam nga ne sëriñ ni ki nga xam ne moom la ñuy compter moom mooy maanaam ki nga xam ne moom mooy responsable bi maanaam bu tey bu doon examen ki nga xam ne moom la ñuy évaluer Macky Sall la ñuy évaluer parce que ci nguuram lañ nekk Macky Sall lañ jox mandat Macky Sall lañ jox ministre de l' intérieur pour mu assurer la paix intérieure Macky Sall moom moo war a euh, garder li nga xam ne mooy intérêt supérieur de la magistrature intérêt supérieur du pays l' intérêt supérieur de l' état supérieur du pays Macky Sall moo ko war a garder te l' intérêt la paix intérieure l' intérêt supérieur du pays jàmm moo ci njëkk. ji bi dafa waxaat li gën a garaaw te garaaw nee na jour manifestation yi ñi ko doon saaga ñi ko doon yuuxoo ji bi dëgg yàlla police bi ak bi war nañ koo recruter. parce que comme moom day taxaw ci kaw présidium mën a xàmmee ki koy yuuxoo joolaa la wala bambara la wala sooninke la wala lawbe la wala wala wala wala géwél la wala lu mën a doon ba nee na moom ña ko doon yuuxoo ay joolaa lañ te dañ na ko ñun Ousmane Sonko la ñu bëgg moom rek la ñu bëgg du keneen. day manipuler mais kii moo mën a kii non Djiby Fall barki Serigne Touba Djiby lu dàqu lii loo mën a teg suñu loxo ñu mën laa gëm amul leneen. damay laaj rek ndax amul lu dàq lii loo mën a teg sunu loxo Djibi Fall nee na bi mu taxawee ci présidium bi moom identifié na ñi ko doon saaga ñi ko doon saaga ni ay joolaa lañ te Ousmane Sonko lañ àndal ñoom ba naan sax bay def apologie naan fii affaire waaso du fi am mais Djibi attention mon frère yenn fen yu amul harmonie yi fen day am tuuti harmonie quoi day day da nga koy mën a harmoniser quoi mais attention yow présidium mi nga yéeg ñu yuuxoo la yow nga mën a identifier ñi la yuuxoo